ay loxom mu ñaanal ko mu ñaanal ko ñaanal rew mi ñaanal rew mi liko tax mu jog li tax mu jog bis bu mag bi rek bis bu mag bi rek la nguur gi yagul ñet ñet rek la mat ne bi mu nguur gi yagul ñet rek la mat way ci lolu waye ci lolu mu ne mom proximité lay def mu ne mom proximité lolu lay def kilifa fu mu ne. nee kilifa fu mu nekk. dana ko dana ko fa fekk. moom nag. nee na moom nag. ay tànkam. ay tànkam. fii ci Touba. fii ci Touba. seetee sëñ bi ba pare sëñ Cheikh. bi mu seetee sëriñ Cheikh ba pare. te jébbal ko lépp. jébbal ko lépp. nee na. nee na. dana nag. dana nag. dana siyaar njabootu sëñ bi. dana siyaare ñi nga xam ne ñooy njabootu sëriñ bi. sëñ Moustapha lañ jóge léegi. ci sëriñ Moustapha ca la ñu jóge léegi ñun ñëpp. dem ci sëñ Fall. buñ fa jógee jaar ci sëriñ Falilou. ñëw ci jëmm ju tedd ji. ñëw ci jëmm ju tedd ji nga xam ne mooy Cheikh Mouhamadal Basir. moom nag. nee na moom nag. ku dugg Touba. ku dugg ko seet. da seet sëriñ Bas. ndax lim yor. ndax lim yor la. ñu wóolu ko ci lool nag. ne mbakki ñu wóolu la ci lool. toogaay bu njëkk bii. nee na sa toogaay bu njëkk bii. bu ma gisee toujours sëriñ nekk sa wet. boo gisee toujours sëriñ dan nekk ci sa wet. nee loo loo man ne Baye Samba ne day bëgg lool. damay bëgg lool nee day bëgg lool lool lool. ndax lépp dafa murite. ndax lépp daa murite. lépp kilifteefe. lépp kilifteefe. kon li ko fi indi tey. kon li ko fi indi tey. mooy dëkkaat lay loxo. mooy dëkkaat lay ko. nga ñaanal ko. ñaanal réew mi. ñaanal réew mi. ñaanal réew mi. ñaanal réew mi. bi mu jógee. bi mu jógee. délégation bu am solo la àndal. délégation bu am solo la àndal. ndax ministre sport. ndax ministre sport. de la jeunesse. de la jeunesse. de la culture. de la culture. Khady Diène. Khady Diène Gaye moo ngi nii suñ ginnaaw. moo toog nii. seenu taalibe. waaye seenu taalibe la. seenub taalibe la. di seenub taalibe. mu ànd ak son directeur de cabinet. mu ànd ak son directeur de cabinet. Abdourahmane Ndiaye moo toog nee. waaye gouverneur. waaye gouverneur. bi doon liggéey ci liggéey bi. bi doon liggéey ci liggéey bi. def CRD bi. def CRD bi. ànd kook préfet. ànd kook préfet. sous préfet. sous préfet. toute l' administration territoriale. ñoom ñëpp ñu ngi commissaire spécial. Du commissaire spécial. ba ci commandant compagnie bi. ba ci commandant de compagnie bi. waaye yemul ci délégation boobu yemul foofu. waaye délégation bi nag xam ngeen ni yemul foofu. le directeur général. le directeur général. de l'administration territoriale. de l'administration territoriale. nga Territorial, wa territoriale waaw noonu rek la. nga xam ne. nga xam ni. yilif gouverneur yi. moy yilif gouverneur yi. yilif préfet yi. yilif préfet yi sous-préfet yi. yilif sous-préfet yi. moo ngi ci délégation yi. ki nga xamné ki nga xam moy conseil technique moy conseil technique communication. communication. Mohamed Lamine. Mohamed Lamine. Mohamed Thierno. Mohamed Thierno. tala tala moo ngi ci délégation yi. moo ci délégation yi. ak man mi ne ak mom mi di Baye Samba Diaw. son conseil technique. son conseil technique. religieux. du religieux. kon délégation boobu. kon délégation boobu. defe nan ni ñoo ànd ak moom. ne mat na sëkk. ñëw waaw nga baal ma foofu. ne ñu baal ko foofu. député Serigne Cheikh Thioro Mbacké. honorable député Serigne Cheikh Thioro Mbacké. bi ministre yi jàllee rek. bi ministre yi jàllee rek. moom Serigne Cheikh Thioro ku nekk xam nga ne moo ciy topp.

délégation baa ngi noonu. délégation baa ngi noonu. léegi damay bi. ñu dañuy bàyyi ministre bi ak kàddu gi. mu wax la. mu wax la. li mu jëlee ci président. ak l' ensemble yore jeunesse culture et sport en date délégation de saint Samba Diaw lim nous président de la république Bassirou Jomai Faye premier ministre du gouvernement bi Ousmane Sonko ak le gouvernement bi union, ziar bés bi tey bés bu màgg la bés bu màgg la nga xam ne dafa am alal bu bees bu fi meññ mu ñu wax pétrole gaz ci kaw dal rek lay mën jëriñ réew mi am nañ ci yaakaar lool ci yéen yaakaar bu yaatu am nañ ne bu ngeen ci ñaanal dina daal ba mu antu ñaanal réew mi nawet bi ñuy dugg nii mu nekk nawet bu naat nawet bu set nawet bu amul yàqu-yàqu ñu génn ci ak jàmm et puis réew mi gën a naat réew mi des ci dal ndax ci kaw dal lay réew mu mel ni Sénégal nga xam ne dafa am alal bu bees bu fi meññ ñu wax pétrole gaz ci kaw dal lay mën a jëriñ rek mën a ci yaakaar yaakaar yaakaar xam nañ ne bu ngeen si ñaanee dina dal ba mu si ñaanee ñëpp ba mu gis njëriñ kàddu gi kàddu gi ñu ngi lay nuyu bu baax a baax ak mboolem délégation bi ñu àndal di gouverneur de la région de Diourbel ak ñoom ànd ak ñëpp di ci tudd itam suñu doom suñu seex Thioro bi nga xam ne moo la nekkal ci dëkk bi ba agsi ci Serigne Abdoul Ahad Ka mi nga xam ne moo jiite commune Touba te teertu leen ànd ak ñëw kon daanaka kat yi sama kilifa wax mu Mahmoudane moo naa ci bañ a dundaat genn kàddu ndax. waroon wax lépp wax na ko kon cant ak ngërëm rek lay doon ndax bis bi xat na te xam ne ne réew fi mu toll xat na ndax da ngeen door da ngeen di door accès rek ni ko sëñ Mahamadou waxee waxoon naa fi bu yàggut ne sëñ Saliou daa waxoon ne nguur gu amugul ñeent fukk kenn du ko teg soxla waaye nguur gu amugul ñetti weer it mënagut a def dara kon yaakaar rek ak ñaan lañ leen di may defal ndax nit ñi ñëpp maasa jël seen yaakaar jooyal ko ci yéen ngir bëgg jafe-jafe yi nekk ak li ñu yaakaar ëllëg ci seen adduna ngeen dimbale leen ci kon nag dañ leen ci ñaanal bu baax yàlla suñu borom dimbale leen gàttandu leen ci ba li réew ñëpp yaakaar ci yéen yàlla dimbale na gàttandu leen ba yaakaar ji ndax ni ma ko daa waxee rek bu ngeen amee ndam ndamul réew ñëpp waaye bu ngeen amul ndam itam ñëpp ko yëgal kon nag ñu ngi lay yóbbante moom ci euh, président bi nga xam ne moo la fi yebal di ko Bassirou Diomaye Faye di ko yóbbante cant ak ngërëm ci déplacement bi nga xam ne def ngeen ko yàgg ñu ngi ànd ak ñëpp ngeen ànd ak ñun bis nga xam ne buñ leen gisutoo nit dañuy xam ne xat-xati réew moo leen jàpp ndax am réew dafa dis di yóbbantam yooyu ci premier ministre Ousmane Sonko bi nga xam ne yàlla def na sax ñëwoon na fi te siyaari sëriñ bi waxtaan yaatu boo xam ne dara génn ci réew mi ak dëkk yàlla def na eh, bu yàgg suñ sàmm jom nii yàlla def na moo la waaye ma xam ci jikko ju baax ak labir ak fonk yoonu murit loolu laa xamoon ci yow ba nag ni kon lañ lay ñaanal yow itam mission nga xam ne gàll nañ ko ci sa yaa ngi ñuy ànd ñëpp yàlla defal leen ci ndimbal tawfeex ba mu àgg ni ngeen ko bëggee te benn gàllankoor bañ ci am ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu damay ubbil Cheikh Mamadou Bachir rek kàddu yi li ci des mu wax ko ci làmmiñu boppam moo ñi ngi nuyu kilifa yii fi ñëw tey teew fi di ministère leen l'intérieur ak délégation yi ñu lim yëpp boole ci sunu doom ji di Cheikh Thioro yéen ñëpp ñu beral leen nuyoo di leen santit bu baax nag cant gi mooy nit bu amee lu dul lenn te mu ñor ko te lépp lu muy mébét àddina ak àllaaxira ca loolee la ko ame ku ko ko jàppal rek cant war seen diggante ngërëm war seen diggante te lii ak yëg la ndax bis bu toll ni bisub Cheikh Abdoul Khadir dégg nañu ni ngeen waxe ngeen déplacé fi ñëw fii ànd ak noonu bis bi daanaka ci njeexte li nga xam ni lii nu gën a taamu ci bis bi ci waxtu wii lay doon ngeen ñëw ànd kook nun amee leen cant ak ngërëm lañuy def ndax ni ma ko waxee léegi li ngeen wax lépp nag dégg nañ ko jàpp nañ ko itam jàppal nañ leen ko itam ndax barab bi ngeen ñëw barabu ñaanukaay la te yaakaar du fi tase mukk ndax day day lu suñ Tuubaa léegi démb jëkk tey li ngeen doore nak ci tambali ñu ngi am ci yeen yaakar joo xamne rafet na njort ci ni li ci kanam dana bax euh, fi ñu toll nak ubbi nañu suñu bëtt di xol te nit lañ ñoo xamni ci dëgg rek lañuy dox waye mënu leena mënu se mënuñu dara dara dara lu rafat rafet jortu ci yeen ba keroog jëf ji teew nu door ko mën a seede jëf ji waaye taxawaay yi nu gisaguñ ci yéen moom ak rafet njort rek lan mën a am di leen ñaanal nag li ngeen mébét ak jëf yi ngeen bëgg a jëf ngeen jëf ko ba àggale réew mi foo xam ne leen doon yaakaar ci yéen bët yëpp dana ci tege yaakaar yi doomu aadama yi nga xam ne yëpp dañ koy yëkkati teg ko ci yéen jënd yaakaar bañ cee tas ndax sas wu rëy rëy rëy ngeen am ci réew mi sas woowu nag barab bii nga xam ne yaakaar du fi tase ñu ngi leen di ñaanal ci sëñ Touba ngeen àggale ko ndax lu ngeen ci jëfit noonu ngeen ko jëfal Cheikh Thioro mii xam na bu baax sunu digganteeg Sonko ànd naa moom ba tey ñëw fa xam na leen daan seq xam na leen daan wax xam na kóllëre yi nga xam ni ëpp na amoon suñu diggante Cheikh mi xam na lépp kon nag bu ngeen ñëwee fii di xarit di wëllëre fekk ñu jëkkër kër sunu mbokk mii nga xam ni ñëpp am nañ ci nun cër waaye nag moom. dañ dul ñaari nit dañuy jënn jëm ndax ni sunu ñaari waajur yi meloon mu Cheikh Abdoul Ahad ak sëñ Abdoul Khadir loolu rek mooy sunu diggante